waaye nañ dem ci ndikku ndikku borom mbaxal mu dig bi borom <laughs> mbaxal mu naan tës tës waaw wi kati lam jongoma dëgg la kati lam jongoma lan lam jongoma lan la ayca <laughs> <laughs> membre du jury jury déplacé wu nañu téléspectateurs yi daal di fas yéene fekk si ki nga xam ne moom mooy ndikku ci mbaxal mu doy waar mbaxal mu ne muut mbaxal mu tëmb lañ fi gis tay ci li nga xam ni moom mooy euh, moom mooy euh, toggu tey concours togg bi waa mbaxal maa ngi ni laay njaay wul mbaxal mi laay looy ree laay mbaxal mi tëb rek ngay ree laay mi te baqate yi ñoo nar a génn rek wil lii wil lii ci mbaxal bett nga ñu bëri déggul nee na mbaxalu mbaari kaay dama koy jege nga ni lan mbaxalu lan mbaxalu mbaari mu naan tëstës mais alors naka nga gisee tey sa waañ ak euh, togg gi nga xam ne toogu nga ko tey daanaka wax dëgg yàlla ñëpp a ngi tudd ñëpp a ngi tudd sa li nga xam ne moom mooy euh, mbaxal mi waaw mbaxal mi man dama naroon génn pay xale yi ne ma yaa mbaxalu mbaar ba mu cartonné dëkk bi dañoo bëgg nga décortiquer këyal ñu nooy toogee mbaxalu mbaar yi moo tax ma génn ci mbaxal mbaar laal sos bu ñorul teg waaw gis nga mooy nii. tey baq tey dinañ rocceeku de. waaw nee naa 2S dañoo tuxu ak chantier yi ak poussière yi ak gars yi caméraman yi dañoo yanoo yanu ba seen bagg yi démonté lépp laa bëgg ñu wàcce ko tey. ci mbaxal ci mbaxal ci tooy ci tooy. soo bëgg alors membre du jury ba tey toogat. Ah ku ci nekk ànd ak sa équipe ñu def hôtesse def ba mu baax macha allah euh, ñu ngi nuy toog di gunge ki nga xam ne moom mooy ndiku ah ci présentation parce que dañ koy taamu ci jeeg teg bool bu baax laal torchon laal kudd mu ànd ak mouchoir lii dañ koy fas yéene euh, bëgg ci ci ci jigéen ndax présentation rek day tax nga lekk ba suur mère Soda Mama fal yaay noo gisee présentation bi. ba ma juddoo ba tey musuma gis lii ndeke xale yi de sa TV dàq togg ci àddina waxuma togg gi waxuma emplacement bi waxuma attaay waxuma tee waaye am na jeeg joo xam ne sax ña nga ca seen ka di jël ay la leçon ci yéen yéen toj ngeen fi ki ku ku moom bi. waaw borom mbaxari mbaxalum mbaari la wax. waay ubal. yooyu ingrédient ca mbaxal ma. ku mu neex nga yóbbaale ko sa tegatkaay boo ñamee ba noppi dañ lay sëy nga soog a dem nu allah njaay maram njaay toñ nañ réew mi de te suba la ñuy jox ñi nga xam ne ñoo gàñe fële ca sabar ba seen ay prix ñoom ñëpp dañu ñëwaat ci sabar ba suba incha allah sabar gi suba suba suba la suba yàlla nga nelaw yaay du ma nelaw maa koy feet ngay jox may doom ma naan première ay ca nee nañ ku gàñe ci togg yi premier bi di nga am million bi am na un million deuxième bi am na cinq cent bàyyi dow première bi am na un million deuxième bi am na cinq cent mille troisième bi deux cent cinquante ñun ñii seetaan rek ku ne di am cadeau waa série bi man nag man der maa beral loxo jox doon ma téeméeri junni maa bekkaay mbay ak sunu ndugg ñu yóbbu ko ca ah membre série bi ñoo a jooj bi dañ lay yow yaa am problème membre série bi dañuy jox Bécaye Mbaye un million cinq cent moo séddale membre siri bi damaa bañ na ku jóg ni ci membre siri bi laa bokkoon ayca <laughs> ñu bàyyi moom du jury de dégusté euh, li nga xam ne moom mooy mbaxal mbaxalu waaw ndiku bi macha allah ci présentation aussi dafa am solo dafa am solo voilà mbaxal mangoog ànd ak li nga xam ne waaw boo gisee lu tax ma def ni mbaxal mi verte bi laa remplacé xam nga xottu biteel day verte mooy mbaari yi olive balan yi non maa ko remplacé loolu comme décoration olive balan bee ngeen gis mooy beton yi xam ngeen béton day weex soble bi soble bu ñorut bi mooy loolu boo sojee mooy loolu soble bu ñorut daa baax waaw fi ñu toll nii ak nawet bi ñun daan mbaxalu mbaari daal lañu ñu war lekk. waaw waaw moom ngeen war a lekk. toj da xam nga loolu. waa gis ngeen ba maam du jury pare. waa <laughs> ah, naka waañ bi tey. waaw waañ bi métti na. sponsor yi ngeen ci àndal aussi. waaw na méttiwut. Mm-hmm. sponsor yi ngeen ci àndal Richador. waa ay Zador logu maam jaara Sowda ñëpp ci biir. Mm-hmm. waaw ñoom jëfandikoo leen méttiwut. non méttiwut parce que ceeb bi tamit. yomb naa togg nee naa ceeb bi bu ko neexoon boo koy yëy muy écraser sa bëñ waaye ceeb boo xam ne amul tànn amul dara neex naa toggee. dëgg la waaw Rizador. Aïcha ñu bàyyi lobbu gaz maam jaar aussi ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax ci li nga xam ne moom ñu bàyyi rek moom du jury yi daal di euh, daal di déguster huile soda ñu ngi koy remercier ñu ngi remercier aussi. Euh, euh, waa Wave également nu nuru laa ñu ngi leen di remercier ak euh, Nouroullah ñu ngi leen di remercier bu baax ci jus bi yaay lekkal loo bëggaas maam jaara moo ma lekk loo gaaw naa ñëw tëddu xam ma ne damaa am surprise bu baax ma damaa ne woon sañsee da ngeen man ndekete man ngeen a togg togg rek loo nag da nga cee génn sa bopp ak sa bula rek ñeeña bu ndaw non bala man sa gëñi ma woo ba ñu mën a togg sa sii bi daal toj na réew mi toj na réew mi ñu bàyyi gars yi dégusté moom du jury ñuy rappeler que euh, madam Sarr mi ngi fii Sensey mi ngi fi Kande mi ngi fi euh, Badiane Mané mi ngi fi mais également Sodo Mama ak Bekay Mbaye ñii dañ fi def euh, vingt ans donc ñii rek ñoo mën a mën a placé wu pour mën a wax li nga xam ne moom moo xew bi 2STV ñu nekk ay mag yoo xam ne wax dëgg yàlla mag yu baax lañ mag yu teete seen ay rakk mag yu teete seen ay doom tey boo leen gisee ni defe naa def nañu vingt ans fii nga xam ni moom mooy la première chaîne de télé privée du Sénégal te Euh, lu mel nii ñu leen ci jiital bu baax a baax a baax ayca waa damay ragal ñu suur nag damay ragal ñu suur membre du jury damay ragal ngeen suur ayca c'est bon voilà ñu ngi ñu ngi dégusté laa Ndiaye ñu dem xoolaat euh, ki nga xam ne moom mooy Adji moo ci topp borom c'est bon ah gis nañ boobu ba léegi moom tamit mi ngi yëngal gësam ba pare togg gi dafa ànd ak li nga xam ne moom mooy ambiance fu ñuy dem ayca nañu jubal ci borom Thiès la Noirée d'amour nañu jubal ci moom xale bi nga xam ne tubaarkaal la ba mu ñëweek léegi yàggul waaye marqué na li nga xam ne moom mooy am xontam ci li nga xam ne moom mooy réseau social boobu di TikTok mu nekk koo xam ni il est bien aimé macha allah ci joie de vivre am ci firéem ah ak euh, ci wax dëggam defe naa loolu dafay am solo ba lu mën a am lu mën a am solo rek yaay booy ñu daal di dox ndànk rek damaa sañse sama xóotal dalaa neex. non xëcc naa ko ñaar yoon. dégg gis naa la. ma dara waaye du bu ma ñibbee naa jàng rouge à lèvres parce que daal. yow loo xool protocole wuyul lii. protocole juli yi maa ko yor ñii. Eh, maay seen ménagère. Ah. del jaar ci man après ndax ñu mën a wax togg bi. est yaa ngi ñam. non dama leen bàyyi ñu ñam pour après ñu xam parce que 2S nii dafa takk ñu maay seen ménagère. mais nga war a ñam. non dinaa ñam bàyyi ma bàyyi leen ñu. ñu jubal ci Cobra moo fi problème ndax géwél yëpp moo seen ménagère waaw. loolu la yàlla nee nañ ñu xaarandi en attendant mu yàq li nga xam ne moo ceeb ba ceeb ba xonk na ceeb ba rafet na tubaarkàlla ceeb ba ñu seen noonu ceebu borom borom Cees la. ma nga toog di seetaan ànd ci ak Ri euh, J'adore Will Soda ak Wave macha allah ànd ci ak BD 360 tubaarikàlla ah dégg ko ca ambiance <laughs> ma nga yuuxu nee na ñu may ko mu daal di yàq li nga xam ne moom mooy ceebam bu rafet dama koy jege rek mu daal di wax li nga xam ne moom la toggee waa Noiret. Eh, Noiret Noiret fils de Noiret fils de la nuit on xale bu Cees kaay baa ngi nii nee naa ne damaa jël sama ceeb. ma rosee sama sama ceeb ak diwlin Zador ma sooree sama ceeb ak diwlin Zador nee naa leen Zador mooy li wóor. huile soda la eh, ay huile soda waaw man aman ah, Zador lan lañ ma def waaye seen ceeb Zador seen ceeb on l'adore du tooy du guus du gas ba pare lobu gas bi déggal ma du jékki naan la bam ay yàlla sunu borom bi lii su ma gañewul rek ma xam ne a ah, yàlla baax na waa EDK seen xeetu jus man daal damaa yuuxu sponsor yi ñoo meilleur waa nuuru laa yéen a les autres ailleurs waaye kenn du j'adore ceeb bi wóor borom ataay bi wóor Aziz Ndiaye rëkk nga dëkk bi yaay booy sa doom mami mami mami mami sa macédoine tey ci mélange ceeb bi lan la. lii jagal la sama yaay ma ko jàngal sama maama ma yar moo tax lii rek laa mën a te wax tey xale jigéen yi ndax nga mën togg ñëw ci lu mel nii mu nekk tey nga ñëw bàq sa dënn fëgg ne mën nga loolu loo loo ci mën a wax jigéen da ngay mën togg métier yi dëgg la neex na liggéey bi neex na mais jigéen da ngay mën kër kër ci lañ lañ naawee ci lañ lay respecté sa jëkkër bu na nabul sax nga mën kër ay xaritam nañ xam ne kii jabaram mën na kër jigéen da ngay mën togg mën yàq mën lépp ci kër yaay sama bàjjan yaay sama yaay soda mama faal mooy sama bàjjan mooy sama yaay soda mooy sama bajjan di sama maam wooy sooga maama mat na idole mat na référence kenn ba ko xolal tàccu leen lii ne leen kuy moo suñu yaay yay géwél juy géwél sama maamay géwél sa dama faal sa ñaari maam yëpp géwél tey ci ambiance ah mami Cobra ma ngay ma ngay defar li nga xam ne moom moo ceeb bi waa ña ngay yàq ña ngay yàq en attendant en ñu bàyyi leen ñu yàq ñu mën a jël quelques réactions euh, ci ci ñi nekk ci télé bi rakikaay rakikaay bul daw sànq ba léegi yaa yore woon li nga xam ne mooy micro bi mënul ñàkk ci 20 ans 2STV la plus belle ba nga fi ñëwee léegi yàggul waaye marqué nga sa empreinte ci ci liggéey bu rafet ah liggéey boo xam ne ñëpp ràññee nañ la ci macha allah ñaanal rek di la ñaanal jàmm ak salaam noo gisee anniversaire. noo neex franchement lii c'est du jamais vu dajale ay influenceuse ñu ñëw def togg xew tey xool yëpp a sedd ñun ñaa ngi ambiance franchement. lii amul fenn kër gi yàgguma fi yàgg naa fi yàgguma fi mais c'est la famille franchement dañ lay accueillir ah ñoo ngi seen ginnaaw daal maa ngi sa ginnaaw. non yow sama rak incha allah kontaan naa lool bébé. ma belle elle est trop adorable. ñu bàyyi membre du jury en attendant ñu ñu euh, ñu ñu mu muy yàq dañuy xool quelques collègues ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi. bu ko defee le temps mami Cobra di euh, pare li nga xam ne moom mooy euh, yàq bi ñu daal di ñëw rek incha allah Khadija noo gisee tey bis. ah bés bi ni ko gars yi xale yi di waxee ala daw na gis nañ ci soow ba tey toggkat yi ñëw nañ def nañ seen togg ñi togg nañ seen baxalu mbaxalu kenkayri ñi togg nañ seen. ceebu ceebu lan géej gi yaa gis naa fi paella boo xam ne nee na siren rek la amul ah façon toog mënul toog <laughs> nee na sidan maam Ndiaye sama nee na sidan rek la la paylaa bi amul donc comme ni ñu waxee dañoo nekk ci constance célébration 20 ans 2STV moom moo waral nit ñi daal di jóge fu nekk ñëw donc mënul ñàkk on s'amuse léegi nag dinañ xaar ñoom ñëpp yekk nañ pendoo indeegum na ñu xaar ñeneen ñi comme ça ñu dégusté xool kon moo dàqale joxe prix. ci membre du jury lañ bokk nii de Thérèse. Bon, disons que pour l'instant, on est à la phase de dégustation culinaire. merci c'est gentil joyeux anniversaire à toi aussi ñoo ngi nii di xaar plat yi nànk gis nga Pendo déjà ñëw na ak ceebu lan sa ceebu yas n'est-ce pas nee na ceebu yas la n'est-ce pas <laughs> donc on attend les autres. macha allah ma jigéen yow moom. yow moom journaliste boo xam ni yaax ñoom Mame Ndiaye Savon yéen a yem da nga bëgg ambiance yaru nga yaru yaru télé bi yàq naa la ba pare. samay nawlee may seetaan boo melee nii ba ñu am benn temps nga war a mën a changer tuuti. <laughs> waa ça va journaliste Sophia Thiam suñu animatrice bu mag bi kontaan rek ci vingt temps yi lii mooy 2S tout le temps c'est la même chose toogandoo añandoo dékkandoo juste que tey nag suñu menu bi bruit moo ci ëpp parce que ñi yëngal dëkk bi ñoo fi nekk les vrais bruits ñi nga xam ne ñoo yëngal Sénégal saa su ne ku si nekk fas yéene def gis nga Pendo gisee andi na bosam moom teel na teel na taaj teel na rosi teel a togg teel a pare gis nañu ñoom Mame Ndiaye gis nañu ñoom Mame Ndiaye tamit bi ñu fi nekkee am na bongoog lépp ñu fas yéene xaar rek lim ñuy andi ak li stop. Safia damay. bisimilah ci Safia. yow moom Fatima lu fi xewle. lu fi xewle Fatima moo njëkk a dégusté macha allah. c'est lekk man sportive la foog may lekk ba suur mun a nekk en encore joyeux anniversaire à nous te je suis en ma jóg après doxantu gars yi xam na ne man damaa mën. la aussi. jàpp ma euh, sport short rek short ak basket rek. non non tey encore joyeux anniversaire à nous lii aussi on réunit. di toog di añ mais da nga dégg si mais ceebu bi alo ñi ngi seen asu jon ñoom ñi ngi añ moo tax duñ leen bëgg dérangé waaye munul ñàkk ne bu ngeen ci mënee sànni as kàddu tuuti rek Kumba Gisee ah Bella ak ma copine ñoom aussi tuuti rek tuuti rek tuuti rek dañ leen di bàyyi ngeen sànni ci mais en attendant maa ngi ñëw ngeen tàkkami tuuti rek euh, laa nañu ñëw ci euh, une dame euh, chef Adama administration pénitentiaire ñoom aussi. sociale des détenus bu administration pénitentiaire dans le cadre de sa de la réinsertion sociale dafa créer benn entreprise euh, buy defar ay détergent ñu koy wax Penipro euh, kii bi entreprise boobu mu ngi ICS Mbaaw dañuy jëlee détenu yi fële camp le matin euh, à l'aide d'un bus ñu ñëw ci entreprise bi liggéey le soir ñu ñibbi chaque fin du ñu ñu fay leen ay pères de famille lañ léegi ñu buggoon nag sénégalais ñëpp xam produit yi jàpp ci réinsertion sociale bi ngeen ñëw ci usine bi jënd waaw loolu très important baax na lu ñu nga xam ne moom la waa man naa jël ayca demal jël ko te di leen rappeler que yenn mbana yi dafay dem fële ci camp pour mën a boole ñi nga xam ne ñoo ñoom la caabi féete ginnaaw ñu bokk ci anniversaire parce que suñu ay fidèles téléspectateurs lañ aussi. lépp loo xalaat ci en produit d'entretien muy fa dañ defar lave-mains ay parfum de chambre ay eau de javel ay désodorisant lépp a ngi fa. képp ku bëgg daal pour jàppale réinsertion sociale ñu ngi lay woo nga ñëw ci Penipro bi ah, chef Adama responsable commercial mën nga woote 78 592 01 01 wala nga woo madame Degen Ndiaye 78 488 56 56 ñu bëggoon Sénégal yëpp ñëw jàpp ci ñi caabi feete ginnaaw waaw. léegi ñu xaar nag mbana yi nga xam ne war nañ leen ko yóbbu. waaw incha allah loolu moom dina baax trop parce que ñi fa nekk tamit soxla nañ ko waaw vraiment ñu ngi remercier waa 2STV bu baax ñu remercier koy remercier bu baax moo waral lépp daal maa ngi remercier bu baax merci beaucoup ñu ngi koy remercier bu baax moom Bijou aussi jàmbaar la non noo leen def ma déranger leen man rek noo leen def ma déranger leen balaa nga ca kërobet man soo ni ma ko bëggee ak soo mu xawee nekk sama ennemi tuut man moo ma jaaxal. namm naa la sama dag kërobet bu kenn jël nekk ci kanamam nag soo maa lay nuyu maa lay nuyu sama rakk ji sama xarit bi xam nga ñuy fête suñuy anniversaire rek vingt ans vingt ans du lu ndaw waaw vingt ans du lu ndaw deux nekk premier seen privé du Sénégal suñu papa El Hadj Ndiaye suñu yaay Mariam di liggéey ba léegi boot seen doom te kon di leen dégg ci dara noo seen dafa neex Pendo Guissé nag dafa ceeb. ceeb na ceeb bu doomu ceeb bi moo fer. ceeb bee ko doomu ceeb bi soo <laughs> rek mais yow da yow yow yaa ñu waroon représenté waroon nga téye mbana tamit. waroon naa téye mbana kay ceeb géwél lay doon waaye damay bàyyi sama rakk ji mami ko bra ceeb teeb ko bàyyi mu ceeb doomu. ceeb doomu ceebam na te li def nii daf du ko de. ceebu gas la def def ci confirmé. bi bari bi bari na ceeb bi moo bari moo moo bari bagage moo bari bagage ceeb bi moo bari bagage ceeb bi yes la fexe leen ba nag man maa ngi liggéey na ngeen am xalaat bu ngeen paree man beral ma man sama côté dégg nga bonne nuit Coumba Guissé la grande journaliste mais so d'accord nga ne tey maa booy ñoo gagné yow da ngay far sa mbokk yi ñoo togg lii te ba nga ñëwee ba léegi yaa ngi ñuy yuuxu pendoo pendoo sama cousine bi toj na fi. non suñu waa kër toj nañ fi. ngeen mën a togg non dañoo mën ñun ñeeñoo yi dañoo mën ñu moroom kenn mais mbégte la euh, tey ci vingt ans ou deux STV yi ñu indi fi suñu mbokk maa yu ñu toj ñu toj fi. non mais yow daal far nga ba. c'est un plaisir non non millions yéen koy. damaa dëkk damaa dëkk ci maa buy un million ñoo koy yóbbu incha allah instant yi ceeb bi rek nga gis ñun dañoo mën. <laughs> journaliste lu ngeen ci xam ñoom yamuñu kase ci bi nga fay de dañu tàgg. ah oui c'est clair ñun maa buy macha allah yow sa xam nga ko ñëpp d'accord nañ ceebu kecax bi tey. ñoo ñoo ñoo. acca asu mënul ñàkk. <laughs> moo ñu ngi leen. maa ngi mais nag dama leen di xamal dara euh, Fatima la suba. sabar gi moo ko nar a toj ak astu jonn ku bëgg ñëw feccu astu jonn gis ko ak Fatima Sylla na ngeen ñëw fële ci centre bi <laughs> yaa ngi def annonce bu garaaw mais nañ ñëw garaawul nañ ñëw <laughs> ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay félicitations et bon anniversaire vingt ans d'existence bon anniversaire à la 2STV man j'ai fait huit ans à la 2S mine de rien donc euh, mën naa ci wax lu bëree bëri en tout cas continuons d'être forts continuons d'être, euh, d'être en tout cas au sommet, parce que quoi que l'on puisse dire, on est au sommet en termes de qualité, bien sûr. Merci beaucoup à la 2 merci à Pendo ceeb bi neex na neex boo xam ne damay dagg fii ak. est du ngeen suur yeneen i ñëwagul de. mais nañ lekk séeréer la ñun ñuy garaawul dañ koy gérer. c'était Astou Dione ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax en attendant mami Cobra di kii kaay sama sama sama ñeeño bi tamit danga nga sañse mais maa la raw mbëggee. kaay nii sama est-ce que xam nga du ma bëgg Sali Baba yal naa dee. Sali ma la bëgg yal naa dee. a bëgg Sofia tey suñu fête la tey la suñu anniversaire. ci loolu jongomaa ni namm naa la. ba xam nga ni xale yi ci yow la ñuy rocc ci jongoma. buñ la toppee ba pare buñ tourné doog may topp namm naa. yow lañu topp ba pare man yow rek laay topp. ci loolu nag Sofia namm naa la merci beaucoup anniversaire bi kontaan bëgg. ambiance ñëpp génn ñu foree ñu 2 xam nga lii la xam ci la ñuy dox ñu jongoo ma def suñu ay hôtesse yu sànnee ku def ay yëf. def yëfu waa waaw loolu ëpp na. kenn mësu koo mais tourné ñu xool sa bopp. loolu dafa ëpp sax dafa tàng dafa tàng aw ma tàng. <laughs> dama ko bëgg mi ngi noonu alors ñu ngi am aussi ay gan ñu ngi ni toog ñoom aussi suñu ay gan lañ dañu ñëw participer ci li nga xam ne moom mooy fête bi ah mënul ñàkk ñu sànni ci quelques kàddu rek bu ko defee ñu daal di euh, ñoom aussi ci lañ bokk yaay ñu ngi lay nuyu. bon appétit baax naa la maay borom ataaya bi mbaa du ma wane. borom ataaya baa ngi nii mais na présenté ataaya bi rafet na de. Ah, nii rek xam nga rek lu yàgg dëgg la. ñoo nekkoon fële port. waaw ñu waaw Aïssatou boole ñu ci mbir yi. yéen it ngeen xajal ñu ci ñu bokk ci. waaw 20 ans d'existence 2STV. 2 bi suñu kanam la. ah 2000 suñu kanam la. inauguration bi yëpp fekke nañ ko. nongo loo def falu dara jarul loolu yëpp suñu kanam la sant yàlla ñu toog ba di ko fekkee léegi yàlla nañ toogaa yeneen vingt ans <laughs> ñu doon maam nag ñoo gunge suñu sët yi mais amoon nuyu naa leen bébé bi la plus belle ñàkk noo def ma timale la micro ya neex na torop c'est trop bien dafa neex lekk yi neex na non ambiance bi c'est parfait ñëpp a ngi fête tout le monde est bien franchement magnifique j'adore Ouais. Tu es belle aussi. Tu es très belle. Merci pas plus que ça. Alors, ñu ñu bàyyi leen ngeen añ ñu bañ leen déranger euh, ñu xool en attendant ba tey ñu seen euh, Mame Ndiaye ngi na le bu ko defee mi ngi waaj a yàq li nga xam ne moom moo ceebam mais euh, Mamy Cobra ah mais joxal ma ko Kumba joxal ma ko Kumba jox ko Kumba gisee kaay ñu ngi nii bu ko defee ñu gis leen mais alaaji yow la nga bongo sànq waaye itam ñun duñu bongo nag tubaarakàlla maam Ndiaye dafa baax ci ñun. yoo yaakaar man maay baaba borom kol Kolda. tubaarakàlla mu bëgg ma ma koy fixel périgami. yoo bëgg maam Ndiaye savon. yow yaa koy fixel. waa yow da ngay bongo di coiffé. déedéet waaye lii aar la rek damay nekk ci programme bi waaye coiffeur professionnel laa. loo bokk ak Zal Mbaye. Zal Mbaye sama doomi la sama xar la sama lépp la maam Ndiaye ba ma koy xam lii xewul. dafa baax ci ñun dañuy teral ñuy ànd ak ñun ànd ak ñun fu ne. mu baax Kolda waaw ndax lii rek a ma yëkkati barke yonent bi mu taxit yaa ngi maa ngi daaneel kër gi moom fii ni na wàcc ne na dóomi te ngoon xale yaa ngi def koo va ñoo ngi dikk xanaa fii ndër xale yaa ngi mais dañuy ene time de waaw ene time bi du fii <laughs> dañuy ene time c'est bon ayca ku toogu ceebu ñebe bi ceebu ñebe bi moom laa laaj pendoo la pendoo man <laughs> ñebe na de xale yaa ngi biru ci ceebam bi de ay ayca ñu dem xool yi ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, Tické Laobé ah Tické Laobé moom aussi ci ambiance am ah ci ci ci ci borom TikTok bi tey fekk nañ ko fi nga xam ni moom mooy ci place am ci présentation mu daal di def euh, bool bu baax Laobé bi nga xam ne tubaarikaal la lu mu lu mu toogul rek baaxul